tàmbaleek euh, li nga xam ne moom mooy prix Goncourt di euh, ku jël xalimam di bind euh, ba ñëpp daal ràññee na mbindam gi macha allah doomu Sénégal moom moo ko jël muy sax guleet di Mouhamed Mbougar Sarr dëkk Fatick ca gox bu ñu wax Fayil bàyyam nag ne daal mbégte la am waaye lépp la jël daal di ko delloo Sénégal ak France ba mu jàngee Malick Sarr ci téléphone beeg Nafisatou Silla Mouhamed Mbougar Sarr tey doomu ñëpp la di ko féliciter di ko gën a encourager di ko gën a ñaanal yow bi ñu santee yàlla ci bind lépp sant suñuy waajur sant suñuy maam suñuy maam yu jigéen ak suñuy maam yu góor fi mu tàmbalee ba suñu àgg ci ki bind lépp muy le yaakaar naa ne tey ji sant yàlla nekk ci mbégte doolu lay ñaan mu jëriñ ko moom ci boppam jëriñ ay mbokkam jëriñ Sénégal jëriñ Afrique yëpp jëriñ bépp nit ku ñuul ci àdduna bi jëriñ France ba may ko lii jëriñ it adduna bi yëpp l'humanité ndax tey li mu bind ci livre bi war na mën a jëriñ ku nekk pour adduna bi mën a gën a déggoo mën a gën a ànd ci jàmm ndax jàmm ji euh, dolleeku ci adduna bi waaw moom fu mu toll yàlla def na mos mosuñoo réeroo livre bi bi ma koy bind comme yeneen livre yi mu daan bind daan nañ ci jokkoo titre livre bi pour wax la benn anecdote dafa am ci ñaari titre xam tànnagul benn nee na ku nekk tànn benn titre ñeenti ñële tànn nañ titre bële yaay ji ak ñaari jumeau yi tànn nañ titre bi muy ñett man titre bii laa tànn muy ñeent comme ça ñu bàyyi la sa bopp muy ñeenti ñeent exerlo mu mujj tànn la plus secrète mémoire des hommes mooy titre livre bi rakam yi bi ñu ñëw vacances indil nañ ma livre bi bi ma ko liiree dama leen ne livre bi beneen affaire la waaye nañ dem ba ci kanam yaayam aussi ñaan wax ci loolu ñaan yaay ji itam ku ma sant la gërëm ko ndax lii wolof li naan liggéeyu nay añu doom moo feeñ ci moom mu di Malick Sarr di bàyyi ci euh, Mouhamed Bougar Sarr jël prix boobee maanaam xaaye bu ñu ràññee loolu waaye tamit naka noonu président euh, kuréel bu boole écrivain fii ci Sénégal maanaam ñiy faral di bind euh, di wuyoo kii di Alioune Badara Bey ne loole daal ndam la boo xam ne littérature ci Afrique rawatina Sénégal daal moom moo ci gën a am ndam ñu déglu ko ak Georges que prix la bu ñu yaakaaroon lu bëri mais vraiment moom mu nekk ci génération bu bees bi nekk mu ne woon nañ leen donc finalement moom Bougane bu ko gagné lu dafa fekk ñuy def conférence di préparer journée de l'écrivain africain le sept boobu maa ngi di jël parole di wax ni ah tey de ñu ñu ngi ñaan ñun vraiment sunu mbokk bi ñu nominé mu gagné prix Goncourt bi donc affaire de même pas deux minutes j'avais la parole ñu woo ma ni ma gagné na ko donc vraiment sunu ñaan la woon liggéey bu mag la def vraiment bare na talent xale la donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax association des écrivains di nga koy féliciter di ko encourager mais aussi di demander nouvelle génération bi di jël exemple ci moom nekk xale commencer bind commencer di gëstu commencer aussi di former wu et ensuite bon contenu bi vraiment il a euh, style bi mu yor style je ne dis pas que dafa révolutionné mais dafa génne lu bees ci yu bëri ci bind bi mi ngi ci yoon wi gagné na prix concours bi bu continuer xam naa ne dina nekk quelqu'un bu mës a gagné peut-être prix Nobel en tout cas ñu ngi koy encouragé bu baax di ko félicité bu baax di ko ñaanal aussi vraiment continuer ci carrière mujj nañu am ci di Mohamed Mbougar Sarr sànq ñu ngi koy woo waaye mujj na yëkkati ay kàddu ne Euh, boobu lee raaya bu kenn yaakaar ne tàngal rek buñ jël jox ko doomu Afrique waaye liggéey la boo xam ne dafa metti woon lool ba mu jur li yëpp ñu déglu kii di Mohamed Mougar Sarr Cheikh Tidiane Diagne moom mu tekk ay kàddoom. C'est spécial pour moi évidemment je pense euh, à ma famille je pense à tous les professeurs qui m'ont formé euh, je pense aux maîtres on a en littérature. sont xel daal dina dem si sama waajur si ñi nga xamante ni ñoo ma jàppale ci liggéey bi samay professeur ñëpp ñi nga xamante ni daal ñoo doon jàpp ci liggéey bi euh, lii nag euh, ab raaya bi nga xamante ni daal euh, fierté la ci man fierté sama réew fierté pour Afrique. un euh, te boo xoolee raay bi nga xamante ni am naa ko euh, mën naa jàpp ni ab signal bi nga xamante ni ma ko lancé jeunesse africaine yi euh, pour ñu xam ni itam dara jomb leen ci kaw bu ñu góor góorloo rek def seen kim kàttan li nu mel jomb leen war nañ ko mën a am. relève de quelque chose d'exceptionnel, un régime d'exceptionnalité. Ce n'est pas une faveur qu'on fait un écrivain euh, africain. voilà te jàpp naa ni sax euh, lu ni mel du ab faveur bi nga xam dañ ko defal en écrivain africain ndax boo xoolee ñun dañoo jàpp ni daal euh, suñu xam-xam suñu mënin moom lañu jël jëfe ko ba tax na gars yi xool gis ni daal li liggéey bi mucc ayib la daal ñu ko jox kon loolu day firndeel ni rek Afrique dara jomb leen te si kaw bu ñu góorgóorloo itam am na ay raay yu bëri nga xamante ne daal mën nañ ko am lépp daal mënoo ko def sans passion pas-pas rek moo la ci mën a génne. on peut penser di jaajëfal Cheikh Tidiane Diagne ci eh, teg yooyu les cadres bu dee ñu mel ni Mohamed Mougar Sarr mujj ñu dañoo mujjee am ay visa dem France jàngi am ñoo xam ne ñu ngi fii visa boobe moo leen të bari nañu nag eh, fii ci Sénégal bu dee nag jaam ñoo xam ne dañu jàppale ñenn ñi eh, ñu am.